ñu si dalal Alhassane Niang moom nag euh, xàmmee ngeen ko ci langue politique bi euh, élection législative yi ñu législative yi ñu weesu bokkoon na ci waaye nag ci langue naataange askan wi la bokk loolu lépp dinañ ci waxtaane dinañ ñëw ak moom tamit li nga xam ne mooy actualité politique bi ak développement yi ci mujjee am Alhassane ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. waaw ñu ngi euh, kontaan di nekk ak yow tey nekk sa invité di nuyu say internautes. di am yaakaar ne li ñu fi wax mu indi njëriñ pour askan bi di ko ñaan suñu borom. ok Alhassane waxtaan bi dañ koy doore ak li nga xamante ne mooy actualité politique bi ñu gis ne législative yi bi mu amee ba noppi ki nga xam ne moo di benn Bokk Yaakaar naam moo gagné waaye une victoire avec une courte victoire de courte tête lañ koy tuddee maanaam tuuti la njégee mhm. ban lecture nga am amal ci résultat yu élection législative yooyu waaw résultat yi bu ñu koy jàngat da nga koy jàngat ci ñaari niveau ndax euh, booy analyser ay résultats électro euh, da koy def euh, du point de vue arithmétique mais da koy def également du point de vue symbolique. Mhm. bon bu ñu xoolee du point de vue arithmétique il est vrai que Benno Bokk Yaakaar mën nañu jàpp ne am nañu majorité. Euh, mais boo koy jàngat du point de vue symbolique dañuy jàpp ne c'est un, un échec euh, c'est une défaite euh, pour benn Bokk Yaakaar ndax bu ñu xoolee fi ñu jóge ak fi ñu egg si avec euh, tous les moyens yi nga xamante ne benn bokk yaakaar génne na ko teg ko sur la table ci élection yi. donc bu ñu koy analyser forcément dañuy jàpp ne euh, c' est une euh, euh défaite c' est un cuisant échec euh, pour le le le, le régime en place jàngat boobu lañ ciy def. kon ñoom ñuy wax crier victoire ils ont tort. non mais xam nga soo demee bay créer victoire pourtant ñoom nee na ñoom ñoo gagné ah. waaw non moo tax ma ne booy analyser victoire da nga koy analyser d' point de vue arithmétique mais aussi d' un symbolique moom mooy li am solo xam nga bu ñu xoolee euh, résultats yi dans les grandes villes moo xam Dakar la moo xam Thiès moo xam Ziguinchor euh, moo xam Saint-Louis moo xam Guédiawaye tey boo xoolee euh, zone yooyu yëpp ma lim symboliquement amul benn régime boo xam ne war nga mën a toog di perte lu mel ni Dakar Thiès Ziguinchor Saint-Louis donc loolu ku ko perte sur le plan électoral donc cest à dafa am benn désaveu bu exprimé wu donc yow boo toogee naan da c'est-à-dire que defuloo une lecture stratégique donc de ces résultats moo tax man je considère que euh, ñoom mënuñu def lenn lu dul crier mhm. victoire parce que c'est un moyen pour ñoom ñu cacher li nga xamante ne moom mooy euh, euh, la la forêt mais un arbre ne peut pas cacher la forêt. Mm. donc et la percée de l'opposition non la percée de l'opposition li muy wane mooy c'est un cri de cœur du peuple parce que askan bi dafa nekk ci benn genre le peuple est désavoué. il a été désavoué par la classe politique te peuple buy sanctionné day sanctionné ki nga xam ne moom la jox àqam mhm. moom la jox baatam moom la jox euh, sañ-sañam moom la jox alalam donc li ñu war a gis ni mooy la percée euh, de l' disons de l' opposition c' est avant tout une sanction loolu la war a jàpp mhm. gis nga lii euh, résultat yi wone nii c' est avant tout une sanction du gouvernement qui en place c' est une sanction du régime qui en place moo tax euh, bu ñu xoolee am na yenn coalition yoo xamante ne qui peut-être pas euh, euh, fait une une campagne sur la base d'un programme waaye askan bi jóg na sanctionné loolu moo waral ma jàpp ne quel que soit benn bokk yaakaar boo amoon sax 100 députés nga xam ne am nañu majorité nga xam ne soxla ñu def ay calcul même bu ñu amoon 120 députés c'est un échec parce que fii ñu jógee ngay xool wax naa du point de vue arithmétique peut-être ils ont une majorité qui est relative mais bu ñu xoolee du point de vue symbolique en regardant le nombre de villes yi nga xam ne ñàkk dañ ko mooy yi ma limoon sànq nga xamante ne ñooñu sur le plan électoral tey boo demee di bëgg a wax yow lan mooy sa poids électoral boo ci génnee ville yooyu ma wax kon yow da ngay jàpp ne euh, euh, le le parti au pouvoir a perdu du pied ils ont perdu du terrain donc je crois que bu ñu ko analyser euh, sou ce rapport je considère que c'est une véritable pour Benno Bokk Yaakaar et opposition bi am na mérite dëgg la euh, mais euh, bu ñu fàtte ne Sénégal le l'électorat sénégalais va davantage vers une sanction que vers une adhésion. moo tax ma mais mais am na ñu jàpp ne résultat yi euh, question troisième mandat daf ko régler mais am na si benn côté bi ñu persister ba léegi. Mhm. di wax ne troisième mandat ba léegi waa ji boo moytu daf koy dana ko laaj. waa xam nga euh, la question du troisième mandat c'est vrai que waxtaan nañ ci euh, campagne bi wane na ko euh, nit ci wax nañ ci ñu bëri wax nañu campagne ñu naan sur le fait que bu ñu falee opposition bi bu amee majorité dina mën a régler la question du troisième mandat loolu lecture boobu faut pas le faire de façon simpliste li taxoon ñu ko ñu doon wax ni troisième mandat mën nañu ko régler mooy bu opposition amoon la majorité absolue nga xamante ne dina mën a euh, imposer ce qu'on appelle la motion de censure au gouvernement mhm. parce que bu ñu benn opposition boo xamante ne au niveau de l'Assemblée nationale dina mën a atteindre ce qu'on appelle le quorum kon quorum bi dina doon permettre nga défier le gouvernement dans une motion de censure te boo ko défier kon c'est-à-dire que opposition mooy nekk en situation de gouverner le pays bu nekk en situation de gouverner le pays cest dire que moom mooy organiser les élections moom mooy téye les institutions te bu téye institution dootul may kenn kuy mën a li nga xamante ne moom mooy euh, euh, suñuy suñuy suñuy bànqaas mais bu ñu xoolee situation bi ñu nekk nii euh, je pense que la question du troisième mandat loolu elle est réglée par la constitution constitution dafa xam loo xamante ne amul ay amul jiixi jaaxa ñi jóg di bëgg taxaw moo tax su ma déggee nit ñi naan euh, Macky dafa war wax euh, ndax de bokk wala du bokk man damay ne loolu bu ñu ko wax loolu la presse ne doit pas le dire le gens. mais mais ko wax su fekkente ne moom moo war a yeewi. non non war a yeewi askan mu ne jeune di nii nii non. non warul yeewi kenn et gis nga jeune di wii nii non loolu mm. loolu pour man loolu yebaate la xam la moo tax. parce que cette question n'est pas du fait de la personne. du day neex nit nga ne man damay doon candidat wala du ma doon candidat loolu c'est les textes ñooy régler loolu. Mm-hmm. constitution li mu wax dafa leer de ce point de vue son article 27 a dit clairement lan mooy taxawaayu. institution yi sur euh, euh, euh, donc la question du mandat benn mandat ngay am euh, renouvelable une fois loolu moom je crois que dafa leer. ba pare mu ne le mandat est de cinq ans. no non non xam nga dañoo ne le mandat. parce que dañ jóge ci benn septennat mhm. dem ci benn quinquennat avec le concours de euh, la révision constitutionnelle bi nga xamante ne mi ngi koy am mi ngi koy am en 2016 ñu ne le mandat passe d'un septennat à un quinquennat ñu ne le mandat il est de cinq ans mhm. renouvelable une fois mhm. ñu ne la nul ne peut faire plus de deux mandats xam nga dafa waxuñu ñu nul ne peut faire plus de deux mandats de cinq ans wala nul ne peut faire plus de deux mandats de sept ans dañoo ne nul ne peut plus deux mandats bi moo xam 10 ans la xam 5 ans wala wala wala 7 ans l' essentiel mooy le texte il est clair de deux mandats loolu moom je crois que képp koo xamante ne bu nekkee sax seey yi ngay am xam nga ne nul moom dafay dafay effacer. deux mandats consécutifs. exactement bu ñu nee nul ne peut euh, faire plus deux mandats consécutifs xam nga lan ngay jàpp. xam nga lan moom solo foofu mooy la nul xam nga nul li muy signifié ci tubaab mooy c'est-à-dire que on ne on ne regarde pas la question euh, je dirais de de la temporalité du mandat cinq ans la wala sept ans loolu amatul solo dès l'instant que dañoo ne nul dafay effacer lépp loo xamante ne dafa doo dafa war a doon ay jeexi jaaxa donc loolu je crois que euh, nit yi sax war nañu bàyyi di ci wax. parce que pour man cette question est un est une non question en réalité. mais su su fekkente ne tey jii nit ñi seen xel dalul am na lu ñu dundoon en 2012 2011. Mhm. mu am ay ñàkk seen bakkan. Mhm. même scénario bi di présenté waat sunu kanam tamit yaa xayti ñooy tirer sur la sonnette d'alarme. non on peut tirer sur la sonnette d'alarme bu nekkee euh, nit ki euh, jóg na parce que xam nga exeguñ ci. Mhm. mais man gëm naa ni bis bu ñu demee ba euh, dugg ci cappaandaw bi. amul nit nit bu fi nekk moo xam Macky Sall wala moo xam keneen boo xamante ne dina ñëw wax Sénégalais yi loo xamante ne dina mën a dugg seen bopp sur la question du troisième mandat parce que loolu non seulement dama ne le texte réglé na ko mais l'esprit même de la révision constitutionnelle a résolu cette question mm-hmm. ndax ñëpp tout le monde se rappelle euh, de cette fameuse interview de Ismaïla Madior Fall mm-hmm. donc loolu pour man euh, c'est un non événement Macky Sall moom moo gën a xam ñëpp moom il a dit aussi dans une en disant que moom ay waxu ñetteelu mandat moom loolu sax xel sax xalaatu ko. ba mu mhm. mhm. mhm. euh, leen fa ñu dem fekk ji Benno Bokk Yaakaar. yéen waa naataange bu ngeen amoon benn sax est ko yàkkal Macky. waaw non alors alors man damay euh, wax ni. xam naa sa sa bopp nga xam quoi. non non man sama bopp laa xam. <laughs> waaye xam nga naataange bi ñu bokkoon euh, bon malheureusement y a eu quelques petites dissensions. ci coalition kay bëri coow la woon kay. war na mm-hmm. euh, ba tey sax maa ngi jàng benn communiqué ñu ne dañoo dàq Cheikh Alassane ci ci ci boppu parti boobu. non non ci coalition bi lañ ko dàq. non coalition boobu c' une coalition électorale jeex na. Mm-hmm. coalition yi jàll na léegi nit yi ku ci nekk euh, dem na ci leneen man bokk na ma ci coalition boobu euh, je m' exprime ici en tant que président de Jiital Wareef le Devoir en mouvement mm-hmm. coalition boobu je crois que li ñu fa waroon def jeex na te Cheikh Alassane Sène tam li ñu fa waroon def je crois que tamit moom ñu revenir ci Pape je crois que xam nga réew mi lan moo yàq réew mi politiciens yi. politiciens yi ñoom ñoo yow doo euh, politicien. non xam nga man man je suis un acteur qui s'engage dans le dans la politique ndax man bi ma dalee liggéey léegi euh, depuis 16 ans ma nekk ci ay réformes institutionnelles dem ba engagé wu ci biir politique parce que dama noté yenn anomalie yoo xamante ne buñ ci jogul day dugal suñu réew ci biir guuta moo tax man ma engagé wu donc du ma considérer sama bopp comme un politicien wala euh, la politique. pour faire la politique d'une manière qui soit acceptable Pape Diop li mu def je crois que loolu c'est une trahison tout bonnement du peuple et du suffrage du peuple parce que su nekkee yow da nga xamoon ne da ngay dem ci Macky Sall wala Benno mais il aurait fallu que avant élection yi commencé mais mu dugg ci seen biir coalition. tout simplement mais choix bi après il était tenu mu choisir. non il était pas tenu. si il fallait mu choisir entre Benno Yewwi wala non inscrit donc bu demoon bu demoon Yewwi. Mhm. est-ce que kon du du jël suffrage euh, askan wi yóbbul ko Yewwi. mais il ne il pourquoi ñu ñu ñu bañal ko dem bi mu dem Benno. non bañaluñu ko xam nga dafa am loo xamante ne gis nga lisibilité dafa baax ci ci ci ci liggéey dafa baax aussi ci élection mhm. su nekkee yow da nga jóg. et puis lui-même boo leen xoolee par le passé c'est lui-même qui disait que y a beaucoup de coalitions dañuy dem ci élection euh, nekk ay coalition fantoche wala des partis fantoches dès l'instant que dañ leen di fal rek dañuy dem euh, beddee ko dem ci euh, ci Macky c'est lui-même qui le disait moo ko doon fustigé et loolu moo doon fustigé léegi moom la loolu la def xam nga après toutes les explications qu'il a donné pour man loolu c'est des justifications rek yoo xamante pour di justifier ay pratiques yoo xamante ne bañ dëkk a xam nga boo ne su ma nekkoon a la place de euh, Pape Diop nga xamante ne benn post de député nga am mais da ngay toogee da ngay tëddee njaxanaay doo bokk nii dans l'opposition ni euh, euh, même bu nekk sax opposition la nekk mais doo nekk ci parti au pouvoir mën nga nekk un député non inscrit mm-hmm. nga bàyyi opposition bàyyi parti au pouvoir même bu nekk yow opposition nga bokk mais nga toog di di boo seetloo bu ñu gisee ne ah, y a des propositions de loi yoo xamante ne qui ko boo gisee ay projet de loi yoo xamante ne mi ngi dem dans le sens de l'intérêt général nga appuyer. maanaam mu nekk arbitre. mën nga nekk arbitre nga xamante ne yow ngay xool lan mooy intérêt askan bi ne pas être dans une posture aveugle. Hmm. nga xamante ne lépp loo xamante ne yow gis nga ne rek lii mën na indil askan bi njëriñ rek su boobaa yow nga dem dans cette direction leneen li mooy en tant que député non inscrit il peut aussi être initiateur de de de proposition de loi mais le euh, d'être dans de logiques de calcul wala être dans les dans les prébendes euh, de de de l'État loolu moo ko yóbbee mu dem lii donc je trouve que euh, lu mel nii dañ ko war a éviter ci suñu suñu démocratie parce que askan soo jógee di waxtaan ak moom ne ko dama bëgg euh, taataan sa baat dama bëgg nga jox ma sa confiance mooy demander sa suffrage mu def ko sur la base de ce que tu lui dis mais ñu dem ba ci mu ekkati baatam ak suffrage am jox la ko. yow nga dem jël ko dem euh, jagleel ko keneen loolu c'est la trahison tout simplement. Mhm. moom pourtant mu ci lecture boobu parce que nee na Macky Sall ko sauvé nga démocratie bi affaire ak ñeneen ñu mu àndal ñëpp libéraux yeeg yëpp noonu lañ ko lecture boobu lañ ci am yéen ngeen jàpp ne dem boobu mu dem du yoon mais beneen mbir tamit euh, dañoo gis keneen ci wàll gi ku nekkoon ci même position ak ñoom mi Pape Diouf Fall mu dem ci non inscrit. Mhm. je pense Euh, la la déposition des suffrages bi nga xamante ne askan bi moo ko jox parce que man mënu ma ñëw taxaw ne la euh, ñu waxtaan ma ak yow sur la base euh, d'argument nga jox ma sa kàddu ñu consigné ko ma dem ñu fal ma député lendemain ma équité dem def leneen loolu même base am nanguwul loolu dafa am loo xamante ne gis nga réew mi il faut que ñu ñu bàyyi caaxaan bi il faut ñu bàyyi calcul politique yi mais xam lan moo ñu yóbbee loolu mooy tant que ñu ngi nekk ci ay logique de jouissance maanaam da ngay dugg ci politique parce que il faut mu indi la dara lool moo ñu yóbbee lii lépp loolu moo tax gars yi duñu duñu gëm dara il faut que les hommes politiques commencent à faire la politique sur la base de principe tant que boobu noonu da ngay gis nañ ko fi ci locale yi y a des yoo xamante ne dañ leen fal sous la bannière de l'opposition mais dès l'instant que fal nañ leen rek automatiquement li ñu def dañ dem euh, rejoindre benn bokk yaakaar on a même vu des maires yoo xamante ne askan yi moo cotisé seen alal ay localité yoo xam ne dañ askan bi xam nañ ne kii amul doole gars yi cotiser jàppale waa ji fayal caution waa ji dès l'instant qu'il a été élu qu'est-ce qu'il fait dafa dem rejoindre Macky Sall benn bokk yaakaar mais c'est une trahison c'est inacceptable li waral loolu mooy dañ lay woo. proposer la xaalis wala jox la ay matériel ak yu mel noonu parce que logique de jouissance moom moo war a arrêté ci réew mi. Mm-hmm. mais nga ko léegi loolu am na beneen tur bu koy woowee bu gën a sax mooy transhumance. Mm-hmm. dañ ko nemmeeku ñi demoon ci élection locale législative yëpp euh, am local gagné nga dem ànd ak président Macky Sall dañu naa dóor ci mm-hmm. élection législative yi. mu mel ni askan wi seen bopp ñoom ñoo jël euh, décision pour comme quoi di sanctionner ñi nga xam ne ay ay transhumants transhumance en réalité est-ce que nekkul benn cancer comme ni ko président Macky Sall doon waxee ci sunu champ politique bi. transhumance euh, au-delà d'être un cancer c'est une anomalie de la démocratie parce que xam nga euh, contrat de confiance dafa dafa am solo entre les politique ak le l'électeur les citoyen xam nga xam nga boo xoolee en droit électoral dafa am ñaari droit ce qu'on y a y appelle le droit actif moom mooy le droit de d'élire quelqu'un le droit de vote loolu on appelle ça le droit actif léegi nga am aussi ce qu'on appelle le droit passif moom mooy le droit d'être gisee ñaari droit yooyu li tax ñu koy mën a incarner c'est sur la base de la confiance entre électeur bi ak ki mu war a fal léegi ki nga xamante ne moom dañ ko war a fal su indee benn contrat de confiance wax ne man sama euh, la raison pour la laquelle nga war ma fal li ak lii ak lii la à partir du moment où moom fal nañ ko ci loolu rek il est tenu de le faire mais mënuloo toog nga xëy rek pour des raisons x y rek taxaw naa non damay dem rejoindre le camp euh, au pouvoir parce que euh, ñoom ñoo am euh, les moyens parce que su ma fa duñ ma jox ay moyens ma liggéey non ce n'est pas ce n'est pas la réalité xam nga jouissance dama koy waxat encore moom moo nekk aujourd'hui la trame et la base de l'engagement politique de la plupart des hommes politiques au Sénégal et loolu tant que mi nekk réalité. transhumance mais mais nit ki nga a mën a a dimbali ñi nga nekkal ah non du question non la politique boo koy def da nga koy def dans la perspective de service de général mais pas di am dara am dara boobu nag. moo tax nit ci dara ngay am ci dara ngay toog pour mën a servir mais mais da ngay servir les citoyens selon les règles établies selon li nga xamante ne moom mooy le cadre budgétaire. yow bëggoo ci foo toog. non du question no xam nga xam nga xam nga xam nga tey foo toog. Mhm. loolu c'est un outil mais foofu nga toog nag boo ko defee moins de jouissance nag. foofu loolu moo lay tax yow tey nga nekk ci logique de transhumance man tey ñu fal ma ci benn position quelle soit damay considérer c'est un outil mais Sénégal lan nañu ñuy constater mooy nit ki bu ñu ko falee rek yow da ngay ne tu réussi man sama affaire baax na léegi. et on l'a vu plusieurs fois li ma li may nekk di wax nii nekk lu ñuy lu ñuy lu ñuy inventé yow gis nga ko da ngay dégg fii ñu fal ministre mu naan j'ai réussi léegi c'est c'est notre tour wala nit ñi indi ay tama di tëgg. Hmm. c'est parce que kon kooku nekkul ci logique liggéey. parce que moom dafa jàpp ne moom léegi réussir na donc gis nga euh, parcours bi mu amoon bu bu ñu demee ba fal ko rek moom loolu si son aboutissement. alors que liggéey bi mi ngi tàmbalee bu ñu la falee parce que c'est à partir de ce moment que ngay nekk dans une logique de service vis-à-vis de l'intérêt général mais tant que yaa ngi nekk ci logique boo xamante yow il faut nga defaru mais bu ñu la falee rek da ngay naan c'est bon. et d'ailleurs loolu moo waral tey li nga xamante ne moom mooy fausser le rapport entre l'électeur et l'élu moom mooy. Euh, Euh, corruption boobu nga xamante ne dañ koy gis wala euh, achat de conscience yi nga xam dañ koy gis loolu tamit dafa nekk aussi une conséquence de tout ceci parce que dangay toog nit ki day ñëw ne la ah bëgg naa nga fal ma yow nga ñëw euh, ne ko lii lii laa leen di jàppale comme ni ñu koy waxee nii mais kooku bu la jàppalee jënd sa conscience mais kooku bis bu faloo rek fàtte na la parce que moom day jàpp ne leneen li nga xamante moom moo tax tey moom mu falu c'est parce que dafa jënd boo xamante ne contrat moom moo lié ak ki fal wala koo xamante ne intérêt moo tax ñu fal ko wala intérêt moo tax moom mu fal nit dans les deux cas nous sommes face à une anomalie boo xamante ne il faut ñu régler ko. qu'est-ce qu'il faut face à cette anomalie. mais il faut faire des xam nga euh, euh, opinion publique moom la ñu war a njëkk réformer dans ce pays. nous devons faire en sorte que nous ayons une opinion publique boo xamante ne nit ki donte commencé na sax parce que yaa ngi ko doon wax sànq la jeunesse elle commence tirer euh, donc euh, je dirais le clair de tout ceci li ñu war a def mooy faire en sorte qu'on une véritable opinion publique ndax bu ñu amee opinion publique bu dëgër rek kon politiciens yi am na loo xam ne dootuñu ko ñemee def gouvernants yi tamit am na loo xam ne duñu ko ñemee def leneen li mooy il faut qu'on éveille les Sénégalais sur non pas des choix affectifs donte dina doon lu difficile parce que nit ñi bu ñuy voter euh, quelqu'un su souvent dañ koy def parce que euh, y' a y' a plusieurs bases soit nit ki neex na leen. wala voilà exactement mais il faut que ñu commencer di fal nit ñi sur la base de programme nit ki bu jógee na dama bëgg nga fal ma maire wala dama bëgg a doon député. mais il faut que ñu commencé di wax nit ki li tax nga bëgg ñu fal la lan moo Alassane ak ak ak vague de d'homme politique bu bees bi commencé juddu on a mm-hmm. gis nañ ñoom Sonko ñoom mm-hmm. Déthié Fall ñoom Thierno Bocoum bon je veux dire ñi nga xam ne dañoo juddu après l'indépendance mm-hmm. nekk relativement jeune ñooñu espoir am na ci xa quand même xanaa non espoir xam nga fan la war a juddoo man damay jàpp ni euh, nous devons faire la politique pour de bonnes raisons man foofu laay commencé wax espoir tant que gisuma homme politique yoo xamante ne li leen tax a jóg nekkul pour en découdre avec qui que ce soit wala nekk il faut que les gens s'engagent dans la politique pour de bonnes raisons xam la mooy pour de bonnes raisons mhm. mooy yow nga fàtte sa ne askan bi moo fi teg servir et non se servir absolument léegi yow ci sa carrière yow en tant que journaliste mhm. combien de fois nga gis en étant vraiment bu nekkee da ngay waxal sa sa sa sa sa sa suñu borom combien de fois nga gis ay vrai homme politique yoo xamante ne askan bi moo leen fi teg tey bu ñu ko doon compter du bëri mhm. donc aujourd'hui la majorité des hommes politiques aujourd'hui mais est-ce que c'est normal que nga dugg ci réew gis benn politicien boo milliardaire la ce n'est pas normal et pourtant le peuple l'accepte dañ koy accepter parce que le peuple n'a pas de choix non c'est pas que le peuple n'a pas le choix parce que le peuple joue le jeu parce qu'on est dans un jeu de dupe le peuple trompe la politique la politique trompe le peuple maanaam ci wolof ci wolof mais politicien day nax askan bi askan bi nax politicien bi ah, et loolu dañu war a jógee ci logique boobu moo tax ma ne la gis nga espoir xam fa lay judd mooy ñu gis ay nit ñoo xamante ne intérêt général moo leen tax a jóg politicien bu jóg di génne ay milliards di ko teg kooku il a sa place en prison non pas dans les instances de décision moo tax man ma considérer ne aujourd'hui lu ñuy gis ni moo xam ci opposition la moo xam ci euh, euh, pouvoir la il faut duñu naam duñu duñu du ñu on va pas jeter le le le le bébé avec l'eau du bain duñu duñu duñu vitupérer ñëpp waaye li ñu bëgg wax mooy la plupart des cas moo xam opposition la moo xam pouvoir la nit yi leen la ñuy xaar pouvoir dañuy def tout pour maintenir li nga xam ne moom mooy son pouvoir ndax c'est un moyen de jouissance opposition mi ngi lorñe euh, man opposition la bokk ñu ngi lorñe euh, li nga xamante ne moom mooy le pouvoir parce que aussi ñu ngi préparé pour ñoom tam ñu mën a defar ci ci opposition nga bokk mais ko waxee mhm. euh, élection yi ñu génn dañoo assisté woon benn bipolarisation mhm. mooy camp bi nga xamante ne Yewwi moo ko ñoo fa gën a ràññee daay résultat yi wane na ko sax Yewwi Wallu mhm. benn camp bennoo moo fa nekk yow ndax mën nañoo séntu gis la ci benn euh, pôle opposition bi non man je pense que bu ñu nekk ci benn réew ndax boo xoolee l'un des indicateurs de la démocratie bu ñu taxee ne est-ce que Sénégal réewu démocratie la bokk na ci indicateurs yi la pluralité pluralité nag yaa ngi koy am aussi bien dans le camp majoritaire que dans l'opposition ndax mënoo am benn opposition boo xamante ne bu homogène nga xamante ne ñëpp benn gis-gis la ñu am. parce que pas homogène mais en fait dañu dañaloo ci benn ci benn bloc boo xamante ne. gis nañ bi ñu ko defee ça a payé ci élection. non non non yi non non non non loolu je crois que loolu yéen sax da ngeen ci am benn part de en tant que parce que vous à façonner cette dualité. mais pourtant non. si si si pourtant non parce, que ñun ñun ñëpp ñëpp ñëpp jaar nañ fi. ñëpp ñëw nañ fi ah. journalistes yi euh, ak ak les médias de façon générale da ngeen a instiller dans l' esprit des Sénégalais en fait cette logique de dualité alors que <clears throat> l'opposition elle est plurielle euh, donc man ce que je dis. Mm-hmm. Euh, euh, ñun suñu doctrine dafa doon loo xamante ne lu simple la puisque ñun en tant que parti politique nous considérons que nous devons mettre au cœur de nos actions doomu adama mm-hmm. yaa ngi dégg te loolu boo koy def li ngay jiital moom mooy l'intérêt général ku ñu fekk ci loolu wala ku ñu gis mu nekk ci loolu dañuy ànd ak moom ñun suñu dem suñu démarche au sein de l'opposition elle est mue justement par le fait avec ñoo xamante ne li leen tax a jóg moom mooy intérêt ku doon nag. ñu ànd ak yow xalaatuñ seen la ci biir Yewwi wala Wallu ak yu ni mel. non foofu moom xalaatuma ko. lu tax. non parce que. ni ñu doxalee moo la doyul. gis-gis yi bokkul. lan moo lan lan lan moo leen déranger si ñoom wala lan nga àndul ak ñoom. du kay dafa am lu ma déranger opposition radicale opposition bu bu modéré bi opposition loolu gañul dara fii Sénégal. non non xaar moo xamal la benn fii boo bëggee gañe dara foo nga yëngu yëngal de. non xaar moo wax la mais ay opposition layam layam bi nii toog di. day intellectuel di cadré gis nañ fi waa aar de. non <laughs> <laughs> gis nañ fi aar de. non gis nañ fi gis nañ non non non question xam nga. xam nga hmm. xam nga ndeysaan li ñuy li ñuy li ñuy jaawale xam nga euh, radicalité mooy lan en c'est ça c'est la question qu'on doit se poser lan mooy radicalité xam nga tey euh, nit ki mën nga nekk dans une optique d'intérêt général nga ne man li ma tax a jóg moom mooy servir l'intérêt général mais nga def ko dans une radicalité waaye li nga xamante ne moom mooy doxalinu ñenn ñi bu ma gisulee sam bopp ci loolu c'est pas seulement du du point de vue de radicalité parce man man mën naa jàpp ne man je suis quelqu'un de radical su ma neexee wax ko je suis ci doctrine bi may teg mhm. je suis radical par rapport je suis radical par rapport au fait de dire que kenn benn homme politique warul jóg taxaw di sént boppam wala di gis boppam ci lu muy def c'est une forme de radicalité mais radicalité noo koy appliqué ci sa doxalin bu nekkee radicalité mooy jóg saaga loolu man kenn du ci fekk bu nekkee radicalité mooy xaste wala xuloo kenn du fekk ci loolu et pourtant pour dire sama radicalité vis-à-vis du parti pouvoir bokk na ba ñuy dem ci élection législative xam nga lan moo nekkoon suñu condition radicalement lépp loo xam dafa xaw a jege Macky Sall on n'en veut pas et tey on n'est pas dans une posture boo xamante dañuy xaw a jóg taxaw di xaw a faire des clins d'œil comme ça gars yi wooñu lépp lu tax ci benn bokk yaakaar wala Macky Sall on n'en veut pas de ce point de on est radical liggéey ji ak moom loolu xel xalaatu ko expérience bi loolu xel xalaatoo dem xel xalaatul loolu buñ la woon nga dem liggéey nekk ministre doo dem mukk si àdduna et loolu je fii wax naa ko feneen wax naa ko feneen xel mu mënu du mën a xalaat ma dem liggéey réew mi nag waaw moo tax ma ne am nga compétence nga dem jàpp ci liggéey réew mi dem mais liggéey koy def di not manière mhm. maa ngi koy def dans le cadre de mes fonctions maa ngi koy def dans le cadre de mes fonctions ci ay ay ay anam yu bëri donc c'est pour dire que boo nekkulee ci logique de jouissance damay insister trop ci mot boobu mhm. loolu mooy nga def benn clin d'œil wala nga ñëw dajale ay nit gars yi xaw la xool gis ne ah kii am na ay nit ak yooyu ñu woo la nga dugg commencé di di diggu naan ak ak noos no loolu du politique radicalité xam nga mooy lan quand on parle de l'opposition radicale xam mooy lan il faut être radical dans les idées il faut être radical la démarche il faut être radical dans la façon d'opérer le changement dans ce pays man foofu la sama radicalité nekk te fu ma mën a fu ma mën a toog di waxtaan ak askan bi mais radicalité bu nekkee mooy jóg yéen li ngeen def mooy opposition républicaine bi du pas dugal sa bopp non xam nga la constitution dafa am loo xamante ne gis nga réew ou bien da nga ne man bokk naa ci biir réew mi non mais dafa ah, non non non non damay non damay toon foofu ou bien non damay naa ci réew mi dans le jeu démocratique et je souscris aux règles mais xam nga lan la constitution bi wax mm. la constitution dit clairement que l'opposition elle doit être républicaine démocratique yow nag boo jógee ci loolu kon ça veut dire que yow yaay poser les premiers jalons de l' instabilité de ce pays xam nga lan moo waral loolu. parce que gis nga ku euh, euh, créer instabilité wala fitna ba agsi ci pouvoir kon fitna ak instabilité moom ngay gouverner. te na mm-hmm. mu ne bu askan wi nekkee i jafe-jafe moom la ñu maanaam um, boo xamante yaa ngi communiquer yaa ngi def nii vraiment ñëw wax discours bu rafet. Mhm. bu normal bu correct ñu gis ne là c'est un homme carré bu am ay idées structurées et tout ça. Mhm. baax jekk na. Mhm. waaye est-ce que askan wi ça passe. loolu mooy jafe-jafe ci ñi nga xamante ne. politique yi ñuy tuddee ay politiciens technocrates. man ci man ci man ci ci ci carré boobu laa lay. non non non bu bul ma yóbbu foofu man xam nga la laa la laa jàpp. mooy man je suis un homme engagé pour le sort de son pays man noonu laay définir sa bopp dama jóg. jëbal sama bopp sama askan dafa dama ubbi benn parenthèse sama àdduna ma ne ki parenthèse dama koy jagle sama réew jagleel ko sama askan jagleel ko Sénégal léegi parenthèse boobu nag bu jaree ma toog di bind damay bind bu jaree ma toog di réfléchir ma def ko su jaree ma wàcc kaw terrain bi di porter le la la voix du peuple. su dee marche di nga wàcc marche. ah bien sûr. yéen duñ leen gis ci marche yi. mais bu dox loolu. yéen moo tax ma ne la yéen. la les médias yéen yéen opposition bi silu silu ngeen. non moo tax ma ne la yéen <laughs> xala xam nga maa ngi la doon wax sànq benn affaire ma ne yéen a créé benn dualité. Hmm. c' est que da ngeen a catégoriser. situation yi moo moo fa ah parfois. su fekkee dara day xew. Hmm, hmm.

donc moo tax ma ne la peut-être que yenn saa aussi il y un problème de communication qui peut se poser. Mhm. mais li am ba am mooy il faut créer sortir de cette euh, de cette dualité. Euh, entre euh, ñaari euh, blocs yéen tamit ngeen jëm cee génn. non non non mais c'est d'émerger du lot. ça c'est important mais émergence boobu nag. Mhm. xam lan moo koy jur. moom mooy journalistes yi arrêté li nga xam ne moom mooy la focalisation sur ces deux pôles parce que Sénégal dañu nekk aussi ci logique un peu sensationnelle. xamante ne euh, fu sensation nekk rek li ñuy dem mais du ñu xool pas on regarde pas forcément li nga xamante ne moom mooy. Euh, l'intérêt bi moom mooy njëriñ bi. moo tax ma jàpp ne yéen it da a am benn responsabilité wax ni il faut ngeen assumer ko. kon dañ naan les responsabilités sont partagées quoi. Euh, jiital wareef. Mhm. moom parti la wala mouvement la wala. non Jiite Wareef c'est un parti politique. c'est un parti politique boo sos kañ nga kañ nga sos parti bi. ko sosee léegi ça fait un an. ça fait un a judd. mu a judd amagul c'est euh, a commencé à travailler euh, depuis bi ñu ko sosee léegi. Mm-hmm. Euh, cela fait un an. daal sax dimanche bi lañ doon def lañ doon célébrer donc première année d'existence am. Euh, donc nous avons euh, des représentants des points focaux dans les différentes régions ak différents départements yi. Mm -hmm. donc il y a un travail de maillage qu'on est qu'on est en train de faire de façon méthodique euh, nekkul nag lu yomb. Mhm. parce que gérer parti politique c'est très contraignant. waaye euh, comme je le disais li ñu tax a dugal ci politique moo ñu jaral tamit ñu engagé wu ci ci ci loolu euh, di ko def en étant le plus carré possible en essayant de porter benn message boo xamante ne moom mooy engager l'action. mais aussi moom mooy engagé la conviction. mais un an ba mu juddoo ba léegi te dafa góor leen fii maanaam fesoo leen ko non lan ma waral loolu. non fësuñu euh, parce que gérer parti jombul comme je l'ai dit euh, te maa ngi wax ni dañ doon nekk di liggéey sur di di travail sur le maillage du parti mais on a fait beaucoup d'actions. Euh, moo xam Thiès la moo xam Diourbel la am na ay actions yu ñu mené ay ay ay ay rencontres d'envergure yu am solo qui ont été relayées par la presse malheureusement euh, peut-être que toute la presse n'était pas là mais am na ay action yu bëri yoo xamante ñu ngi koy mëne. Euh, fu ñu waree est-ce que desul ci yow mi jiite parti bi nga gën a nga gën a nga a jiitu si kanam su ko defee ñu gën la sentir ci côté askan wi gën a mën a jaay turu parti bi tamit. waaw loolu ñu ngi ci ñu ngi ci mm-hmm. euh, bokk na ci suñuy stratégie ñuy def loolu euh, xam nga mënoo nekkandoo fépp en même temps. te luy doog juddu ñoo àndal tamit ñoo xamante ne mën nañ porte voix waaw loolu pas benn porte parole boo xamante ne dina fës ñu koy gis yéen non loolu dëgg la loolu dëgg la je suis d'accord doon benn parti télécentre rek non non moom ëpp naa def boo ñëwoon Thiès hmm. wala boo demee ci certaines localités di xam ne ñun suñu parti mais naataange askan wi ngeen bokkoon te gis nañ naataange jotul sax am benn waaw naataange xam nga li ñu xawoon sonal ci euh, naataange wax naa ko sànq mooy dafa amoon ay dissension Euh, et dissension yi dafa brouiller le message parce que xam nga man en tant que porte-parole de naataange fu ngeen bokkoon sax mais justement moo tax euh, yaa ngi euh, bëgg marché marcher sur ma langue comme xam nga boo xoolee man maa nekkoon le porte-parole de naataange mm-hmm. man maa ngi wane clairement suñu ancrage au sein de l'opposition de façon sans embâche opposition la bokk waaye bu kenn clignoté ah génn naan maa ngi félicité Macky Sall waaw donc loolu day brouiller le message. moom kay parti gis nga léegi suspicion boobu nag kay moom njaxase mélange la woon. waaw waaw suspicion boobu nag moo ñu xaw a yàqal mais euh, bon je considère que expérience la boo xamante ne euh, am nañ ko ci jàngal nañu lu bare. ban leçon nga ci tiré législative yi nga participer en tant que porte-parole. non li ma siy tiré comme leçon mooy euh, dorénavant dootuma dem ci coalition boo xamante ne peut-être que jiitewuñu ko. parce que parce que boo jiitee foo yaay jiite. non non pas pas forcément foo dem yaay jiite mais am na yenn euh, situation yoo xamante ne yow il faut nga jël say responsabilités jiite ko xam lan moo tax parce que ci la lay permettre nga mën a euh, li nga gëm ci nga koy mën a incarner mais bu nekk da nga ànd ak euh, benn groupe hétéroclite boo xamante ne maîtriser wu les tenants et rek. Euh, peut-être am na yoo xamante ne euh, daf lay rëcc. Mhm. Euh, ay situation yoo xamante ne comme celle qu'on a vu nga xamante ne kii jaar fii kii jaar fii mu créé benn benn benn benn brouillage donc doon message donc je trouve que loolu dafa nekk ci limay may jàng. Mhm. leneen li tamit nga xamante ne jàng naa ko ci élection yi moom mooy l'extrême pauvreté des Sénégalais Sénégalais dañu sonn boo demee dugg ci gox yi di waxtaan ak nit ñi. c'est là on se rend que dafa am benn décalage entre le, euh, le la, la classe politique li ñuy gis ak la réalité de la situation sénégalais dañ nekk ay euh, ay nit yu yu dund ay jafe-jafe yu doy waar. donc loolu loolu gis nañ ko ci aussi et puis euh, jàngat nañ ci leneen aussi donc comme ni ma ko doon waxee les médias aussi je crois que yéen war ngeen góorgóorlu parce que yéen constitution bi maa ngi doon wax ma ne les huit indicateurs yi tax ñu ne réew démocratie la médias yi ci bokk. yéen dañ leen war a considérer comme un vrai pouvoir mais dañuy gis ne aussi les médias ne jouent pas dans tous les cas le jeu démocratique loolu tam nekk na benn jàngat dafa xam benn favoritisme bu ci am dafa am ñuy ñuy privilégié ak je ne dirais pas un favoritisme mais y a un boobu war ko xolaat euh, moo tax je considère que euh, au lieu d'encadrer mais Alassane yow tamit da nga ñuy sànni xeer quoi da nga ñëw fii ñu sànni xeer naan dafa am biais boo xam ne war ngeen ko xoolaat mais dëgg la non yow mi sax xam nga li may wax dëgg la ah bon mais oui bien sûr. ñun jëm nañ tëddee njaaxaanaay lu ñu mën a bu ñu invité tey parti suba ñu parti bële. justement loolu mooy problème da nga ne jéem. waaw mais dañuy jéem. non leen jéem loo gis da ngay jéem. doo jéem da ngay tëddee njaaxaanaay parce que boo leen demee bay jéem rek kon ça veut dire que le billet il est mooy mooy li ñu war a def. non non quand même. <laughs> la moo xam nga xam nga bu baax li ma lay wax. <laughs> mais euh, donc voilà tout ça pour dire que élection yi jëlee nañu ci ay jàngat yu am solo. Mm-hmm. Euh, donc jiital wareef euh, euh, le devoir en mouvement. Mm-hmm. benn parti boo xamante ne maa ngi doon wax sànq bañ ko créer mais xam lan mooy différence su jiital wareef ak les différents partis. Mm-hmm. qui existent au Sénégal. te loolu lu mat a bàyyi xel la ñun suñu démarche politique dafa doon benn démarche bu singulière parce que li ko tax a jóg. xam naa sax su ma la waxee loolu di ma naan non loolu moo tax ma doon wax nga naan ay technocrate ñaar mhm. gis nga li Sénégal mos a bind ci politique publique mhm. depuis 1958 ba plan Sénégal émergent lépp li ñu passé en revue te bi ñu ko defee li ñu njëkk bind mooy un référentiel des valeurs muy nekk un document boo xamante amul benn parti politique bu ko fi am Sénégal amul. et document boobu non xaaral xaar ma wax la. léegi may wax nii de. gis nga aar ñoo fi njëkk indi contrat de législature. non non non fu nañu brandir ko. mais baal ma nañ ci. gis nga parfois. non ngeen di am problème lecture par rapport askan bi ñu am dañ naan sax est-ce leen ci peuple yi. non non non man parfois loolu laay wax de. parce que li ngay wax nii. Mhm. lu am solo la. Mhm. mais c'est destiné à une élite. maanaam askan wu ñu tuuti ñoo lay laaj loolu xam nga démarche ak li ngay proposé peuple bokkul. référentiel bi xam lan moo tax ñu bind ko. parce que dafa nekk benn balise boo xamante ne moom mooy encadré yow sa doxalin ak sa liggéey référentiel boobu nag jur un projet sociétal ban gis-gis dañu am pour Sénégal mais gis-gis boobu yemuñu ci toog ci ay bureau toog di ko bind dañoo wàcc toog waxtaan ak askan bi déglu leen boole li nga xamante ne moom mooy seen i seen seen i mbëbët duggoo ko ci biir projet sociétal bi projet sociétal bi jur le programme politique que nous allons proposer xam lu tax ñu def loolu c'est que on veut pas tomber dans la démagogie ambiante bi nga xamante ne ci la parti yi nekk nga xam da ngay xaar ba un mois avant élection nga bind benn programme nga dem ñu fal la ci kaw loolu nga gis ne programme boobu ce n'est pas mais mais pourquoi xam nga xam nga dafa am affaire boo xam ne il faut tam ñu taxaw bàyyi ci xel et qu'on se pose des questions mais lan moo tax tey ñu nekk ci réew boo xamante ne dañu nekk ci benn pente buy wàcc. Sénégal à mesure qu'on avance dans le temps mais mi ngi mi ngi gën a périclite di wàcc di dellu ginnaaw lu tax. est-ce qu'on se pose ces questions yéen journalistes est-ce que vous posez ces questions. mais doo nga ne day dellu ginnaaw foo teg loolu. mais loolu mooy indicateurs yi xoolal fu nekk boo xoolee les rapports de du FMI les rapports de la Banque mondiale euh, les rapport de la c'est-à-dire que amul benn rapport booy jël concernant le Sénégal indicateur boo mën a xool moo xam PIB la wala lu mu doon mais Sénégal dafa nekk di wàcc. mi ngi yéeg sur le plan démographique. est ce que du fi jamono toll la parce que gis nañ croissance mi ngi doon yéeg mais bi Covid bi ñëw daf ko commencé. non non non man waxuma croissance croissance mm-hmm. loolu dafa nekk loo xamante ne c' est c' peut être circonstanciel mais man je parle de la richesse de ce pays richesse su réew boo koy natt da nga koy xool ci PIB am PIB Sénégal demal nga xool PIB Sénégal en 1960 par rapport ak léegi par habitant nga xool. xoolal situation macroéconomique Sénégal askan wi tolloowul nag en 1960 on faisait 3 millions d' habitants. la mais lan moo euh, nekkoon budget Sénégal et lan moo nekkoon la richesse du Sénégal c' ça aussi. nous sommes euh, sur une population dëgg la de 17 millions dëgg la mais le budget du Sénégal en par rapport ak budget wu léegi ñu ngi ci milliards jëm milliards. mais loolu ban jeexital la ci réew mi croissance bi nga xam ñu ngi koy wax quel est aujourd'hui Euh, l'effet de cette croissance par rapport ak le panier de la ménagère dundinu askan bi Sénégal tey est-ce qu'on vivait mieux il y cinquante ans wala il trente ans par rapport ak léegi ou est-ce qu'on vit mieux par rapport ak cinquante ans wala il y trente ans politique publique yi pourquoi est-ce que nos politiques publiques sont échec xam lan moo waral loolu. Mhm. ay opposants yu jóg taxaw yuuxu yuuxu ñu jox leen réew nag ñu jël pouvoir nag ils se rendent mais finalement mais où est-ce qu'on va moo gis nga taxaw di yuuxu na parce que loolu comme ni ñu koy waxee loolu sénégalais gëm loolu nag moo leen yóbbee ci li ñu nekk nii sénégalais il faut ñu yeewu moo tax ma la doon wax sànq naan qu'est-ce qu'il faut faire man la il faut xam ni ku fi taxaw di naan euh, kaa ngeen ngeen ngeen xeex wala ngay taxaw di démagogie di nekk di yuuxu fii ci télé yooyu kooku bis bu ñu joxee réew ci loolu nga koy nga koy nga koy gouverner doo fi indi benn solution. Hmm, kon kon kon ku jigéen noonu yow gëmoo ñu yor solution bi. mais mais ku ji bi amul solution. kuje bi nga xamante ne waaye ñooñu yoruñu solution. mais ban solution lañ yor. yow da ngaa yor solution bi. mais déggoo li ma la wax léegi sur la démarche. Mm-hmm. mais est-ce que gis benn nit. mais yow yow solution yaa yor solution quoi. xam nga xam nga xam nga xam nga réew. Mm. dafa am loo xamante ne man je nekk nit buy prétentieux. naan kii amul man maa am saa kenn du ma dégg c'est que quand analyse li nga xam ne moom mooy la démarche de l'opposition aujourd'hui cette démarche elle est pas bonne du démarche bu baax parce que du lu mooy tax tey ñu génn ci situation bu ñu nekk. xam nga lan démarche opposition xam la lan lay indi mooy changement mais changement pour changement bu nekk yow da ngay indi changement boo xamante ne xamuloo naka ngay porte la dynamique de ce changement wala naka ngay incarner l'espoir bi tax changement boobu am mais kon su booba fan lañ jëm moo tax man ma la doon wax sànq ma ne je ne crois pas à cette démarche. Mhm. ñun suñu démarche elle est méthodique. parce que dañu jàpp ne Sénégal la finalité n'est pas de porter le changement xam la mooy finalité faire en sorte que le Sénégal soit faire en sorte que l'épanouissement du Sénégalais soit une réalité loolu moom mooy li nga xam ne foofu la ñu war a jëm mais pas seulement taxaw di yuuxu wala taxaw def lii wala dénoncer wala affaire mel noonu parce que dénonciation tabaxul réew. Mhm. ku mu mënti doon nag. ngay taxaw fii di dénoncer du matin au soir gars yi naan yaa ko yor ak yooyu bis bu ñu la falee di nga taxaw naan mais man li nga xam ne moom laa yor ni muy le pouvoir qu'est-ce que je vais en faire ci logique boo xamante ne dañuy considérer ne le pouvoir est la finalité parce que c'est pas le cas. ok tant que juguñu. Mhm. jàpp pouvoir comme benn étape comme benn outil wala benn moyen kon dañuy trompé wu de lecture ku fi ñëw taxaw di wax ak yow di wax ak askan bi lan naan ay def leen lii wala def leen laa wala euh, taxaw di euh, dénoncer mais la déno mais y a rien de plus facile que de dénoncer mais man mën naa ñëw toog rek na la invité ma wala ma dem ci télé def conférence de presse taxaw di dénoncer mais loolu y a rien de plus facile mais que faisons-nous de tout ceci dénonciation réew. xam réew lan moo koy tabax vision mooy tabax réew il faut il faut de l'audace il faut des réformes il faut un cadre stratégique loolu mooy defar réew mais taxaw rek di dénoncer loolu tout le monde peut le faire léegi malheureusement comme dañu nekk ci réew boo xam dafa bëri sensationnel soo wooyee nit ñi ci ludisme wala nga woo leen ci ay euh, ay ay caaxaan wala nga woo leen ci wàllu spectacle ñëppay accourir mm-hmm. mais bu ñu demee ça va la plèbe plèbe nag jurul lenn lu baax pour réew xam nga réew lan moo koy jural lu baax moom mooy nga considérer le pouvoir comme un outil mais pas comme une finalité te li ma gis fii moo xam opposition la moo xam gouvernement bi ñoom man c'est vrai que opposition laa bokk mais li nga xam moom lañu jàpp ne mooy opposition kooku en réalité su ma su ma la déglu daal su ma résumé la yow yaa yor saafara bi. non jiital waraf moo yor saafara parce que opposition yoruñ ko pouvoir yoruñ ko. jiital waraf te ngeen dooree ba léegi am ngeen benn mbir. Euh, jiital waraf li nga xam ne moom la teg moom la li li waraf teg en terme de de de de de démarche. en hmm. terme de procédé. kooku bis bu ñu yàlla mayoon ñu incarner le pouvoir dans ce pays. Sénégalais fu nekk la ñuy bàyyeekoo ñibbisi ci biir réew mi parce que. nous avons yéen yor saafara si. non non non non nañ ko résumé noonu rek. parce que ñee yoruñ ko ñële ñu yéen yor saafara si. li ma la bëgg wax non loolu nga bëgg wax. kay ay on n'est pas ñu ngi nekk di liggéey ci benn démarche boo xamante ne ànd ci ay nit yu bëri de toutes conditions. Mhm. ay borom xam-xam des sénégalais euh, de toutes conditions et de toutes classes li ma bëgg wax mooy. gëm nañu ne suñu démarche suñu démarche elle est celle qui est porteuse du véritable changement dont les Sénégalais ont besoin pour seen épanouissement. ah waay ma bàyyi la nga def sa mot de la fin. waaw donc ñuy kontaan ci euh, euh, invitation bi tey di euh, yaakaar ne seen internautes yi donc suñu kàddu bi tey indil na leen njëriñ. Mm-hmm. di wax ni suñu réew dafa nekk ci benn tournant tournant boobu nag moom moo tax ñun ñu engagé wu ci politique mm-hmm. et may wax ni aujourd'hui la jeunesse. Euh, dans son ensemble mais les Sénégalais euh, de toutes conditions euh, confondues dañu war a engagé wu dans la politique mais nañ ko def pour de bonnes raisons moo xam ñun la àndal wala ñoo xam ñeneen la ñuy àndal mais nañu engagé wu pour de bonnes raisons fi may daanelee mooy les hommes politiques de ce pays il est temps que ñu comprendre que ne réew mi ñoom moomuñu ko ndax la classe politique elle fait moins de 1 pour cent de la population sénégalaise nañu xam ni réew mi moomuñu ko alors que boo xoolee presque toutes les richesses ñu ngi koy agrégé ci biir classe politique boobu loolu il faut mettre en terme à moo tax ñun ñu jóg engagé wu et bu ñu yàlla jàppalee ba ñu mën a incarner suñu projet sociétal nous allons mettre un terme à cette anomalie parce que anomalie boobu moo ñu yóbbee tey ñu jóge situation boo xamante ne les Sénégalais vivaient mieux vers une situation boo xamante ne euh, je dirais que c'est une détresse sociale à tout point de vue. Alassane merci. maa ngi lay ma lay remercier di boo xam ne jàpp nga ci émission ba mu yemb di doon suivre ma fàttali ne Alassane Niang lañ doon moom mooy jiite parti bi di moo ko jiit Cheikh Alassane Sène autant pour moi moo ko jiite ci élection législative yi ñu génn mbokk yi jaa ci ànd bi ngeen doon ak Sunugal rendez-vous ci kanam tuuti rek seen émission bloc note ñu siy ànd ak tey Théodore Monteil merci beaucoup à la prochaine. Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu nee góor ngóoraa tax